لا suñu samedi bi passé sëriñ di day waxtaan di ñu jàngal ñeewante ak yërmande di doxoon diggante Cheikh Ibrahima Niass ak njaboot gi ba jàngal ñu benn a bu ñu nettali kenn ku xawoon am tuuti mu a jëm ci ko ko a nekk taalibe ñun ñëpp kenn yëngal nañu ñu jàppee ci ne nekk nekk taalibe mu ngi ñu jëm li bàyyi ba Niass doon wax ne kuñ dimbali mën naa yàpp ko man waaye dana dañ la dimbali ba nga yaakaar ne yaa man ki dimbali fekk moom la ko ki la moo man boo xam ne ki la moo man nag da ngay jël dimbal yëpp delloo ko kon pour tur bi yëpp def doon taalibe sax bi ñu sa baay defar dara waroon benn ngor bu ñu war a am rek mooy surtout nekk taalibe nekk seen i jàmm moom war ñun ci bu ñu koy natt suñu askan amul ci ñu kenn koo xam ne amul nga daraja ci sa askan woo jëlee woo mën a du taar du dara du ñan mboolem lu ñu nawee ci sa baay leen ñu ko nawee loolu nag wax dëgg yàlla bu ñu amee ngor def di nekk taalibe rek mooy la ñuy jëlee lu ñu yóotu lu nekk rek loolu lor la ñuy am yàlla nañu doon di nekk taalibe yàlla na yem naa ne sa baay seen yem naa ne nekk suñu kar lii nag ñun aadama mën mën a wax ci kan ñu dama bàyyi parce que bu metti bi ñu leen looloo ko waral bu ñu fekkee am na yeneen njëriñ yu ñu mën a teg ci mbir yi ñu wax def nañ ko nga xam ne yaay bàyyi jërëjëf. njabootam yëpp ci tànk yooyu la nekk di ci gërëm bu baax suñu sëriñ bi bokk Cheikh Mouhamadou Mahi mi toog ndax bëri na ay xalaat yoo xam ne ñu ngi ko demee ci Fapal dañ ko war fii ci Dakar bëri ci moom la ñu ndax amul ci Dakar rek ndax. bu njëkk département Dakar bi leen jiite woon mais léegi dañ tuwee kon mu nekk région de Dakar bi ak région de Thiès bi yëpp kon loolu yëpp département bu nekk nag am nga président waaye président bi leen di coordonné man dañu yëpp ci xalaat ñu ngi koy ñaan yàlla bu baax di wax ne sëriñ bi boobu leen nga ñaanal monsieur le maire ndax xam ne ne toujours yaa ngi koy ñaan ndax nit la koo xamante ni heure bu nekk rek soo ñëwee ci jotaayu seen bi rek dama ko ko def mu xasee teew yëpp kenn ku nekk ci ñoom bu jëloon kàddu mën naa wax looloo ñaari ndax li may wax nii ci ñoom laa ko déggee moo tax ma ñu may taxaw di ko teel jigéen def fii nekk ansaaru diin jigéen ansaaru diin ku ci nekk mën ngaa am li ngay am mën ngaa sos li ngay sos waaye gis nga li ñuy bàyyi nañ leen jëmmal nañ leen ci góorgóorlu mbooloo boo ci buñ a xoolee deel teew buñ la laajee deel joxe buñ laajee sa xalaat nga ko koy wax bu fekkee ne dangaa bokk ci mbooloo bi la laajee doo joxe suñ la waxee sa xalaat doo teew doo joxe sa xalaat doo teew doo teewa kon dëgg-dëgg dangaa bokk rek faale bokko kon nag yàlla yàlla ñu yàlla ci bokk ca bokk yàlla ñu yàlla ba nga xam ne nii mbir mi fi ko bàyyi ba dee ñu bokk ci ñu ko yóbbu ko ndax laa sekkale waaye danaa ndokkeel ki nga xam ne mooy borom jotaay bi mooy Cheikh bu baaxu mooy ndokkeel bu baax di ko ñaanal yàlla tawfiix daayiman waxoon naa leen keroog ni ñuy organisé ci xadara jumaa boobu na leen lu ngeen bëgg rek loolu ngeen wax ko ndax bàyyi dama ko rek wax naa keroog ci gàm bi ne fi mu toll nii dañoo dépassé ñaan man dama ko dépassé maanaam. maa gis ne sëriñ si da ngeen war wax euh, ñaan moom je passe ndax li waroon a ñaan yëpp bàyyi ñaan li fi des nag mooy ngeen jël tampon bi ngeen tampon ni ñu def sëriñ bi kon loolu la ñu seen ci la ñu xaar ci yow waaye balaa maa jeexal kàddu gi danaa gërëm monsieur le maire yàlla ba léegi maa ngi waaj maa ngi koy wax chef de chef ñoom chef kàddu yëpp. ñëw fa gërëm ci taxawaay bi nga xam ne moom la ñu taxawee woon keroog ci jumaa boobu xam ne dëgg yàlla c'est la première fois moom fi ci Dakar mboolem muqaddam yi baay yëpp dajee benn barab loolu su amee yàlla sa ndimbal tax mu ngi ci gërëm bu baax mu ngi ci sant xam nañ sa taxawaay ci fay bi xam nañ sa taxawaay ci xadara bi mën naa la keroog ne la loo bëgg rek nga woo loo ñu jëf wax ndax tey bii kilifa yi bi rek bàyyi jox la leen ay mbóot yoo xam ne dañoo nëbbutu rek ko nëbbu waaye man am am na lu ma ci xam yoo xam ne kun fayakun yi ñoo koy rek mas naa sonal sama mag Cheikh Mouhamadul Mamoun yàlla ko yàlla yërëm ci benn mbir boo xam ne mu déggoon a bàyyi ba ko jox ko torop fu ma dajal moom rek mu ko laaj ba keroog bi mu avant muy gaañu trois jours laa ñëw seet ko ci hôtel bi ma ñëwee ma fekk mu tëdd te biñ si mu mel nii lañ mu tëb jóg toog voilà daal di jël ñaar sama ñaar mooy def ci dënnam ma ne ko la ma fi dama daan laaj rek moo fee leneen ñu mu ree dama daan la ko def fii yëpp ay fan incha allah nekk na moom may tàggu wala ñu ngi bëgg la ñu bàyyi daan defal ngeen defal ñu ko te xam nañ ne ngeen ko te loolu la ñuy séntu ci yéen loolu la ñuy sàkku ci yéen ngeen ñu parce seeni taalibe lañ seeni doom lañ seeni bokk lañ leen seen bàyyi utuñu lu seen bàyyi sàkkuñu kenn ku dul seen bàyyi ndax xam ne seen bàyyi moom moo ñuy jëriñ fii ci àdduna te moo ñuy jëriñ fële ci àllaaxira alhamdulilah joxe kàddu gi parce que nga woote kilifa yu baax yu yu yi ñëw te kum ci neexoon nga toog sa kër ba ne ñëw te jiwuma leen lu tax ñu fekk si moom loolu doyoon na ma ne alhamdulilah rek joxe kàddu ñaar waxtam daf may xaw a su fekkee sama sëriñ dafa teew muy Mouhamadou Mahdi Ibrahima Niass moom dama doon ne li ma doon arrangé mooy mbappat li ma woowee mbappat mooy moom mu xaw a mel fu bari su boobaa la gën a firi pour waxtaan mais dañuy sant yàlla bi nga xamee ne sama waajur bu góor fan yi dafa feebar ma fekk ko hôpital yàlla may na ko wér mu ne ma xaw kan moo war a wér di bàyyi waaye yow ma bokkoo ci waroo cee bokk mu ne ma damaa xam fi mu la jëlee ak fi la indi moo ma jur mu ñëw seet si ma sama kër ne ma dama ñëw pour ñaanal si la yàlla loolu barki démb la yàlla waaye mu summi mbaxanaam toog ci suuf dama ñaanaloo ma ne ko mu ma wàcc ci suuf mu wàcc ma gën koo wàcc ci suuf waaye ma xam ne li doon wax rek mooy dëgg li tax mu nangu loolu muy séeréeru ceetoo bu dem ba nangul bàyyi ba nangul ma man muy doomam kon man maa war a jërëjëfee bàyyi wax la leen ma jërëjëfee bàyyi ñas la lan jërëjëf bay bàyyi ñas laa dellu si ngeen jógee 801 soo ko dëppee daf lay jox 108 lu tolloog yaa xam kon jamono bu ñëwee ba ngeen jaaxle xamatu leen fu ngeen jëm mu ne ngeen dellu ci dëgg mais lu ma jaaxal mooy at boobu Joal tam ndox mi dafa nangu géej Euh, dama ngeen baal ma ndox mi dafa nangu seen mboolem kër yi ci benn at boobu muy Joal mais li ci yéeme mooy diggante Joal ak Dakar 114 kilomètres la mu tolloog Jaaméo suñu waa ji ne woon ummatu xas ji fii mu an asoohum ilaa kon kii mooy rassemble kon kii moom la ñu doon junju en 1999 bi nga xamee ne tremblement de terre boobu am na moo tax mu li am nii habibu zaati wa sirriha wa martabatuha wa muraaduha jaamiu tanjëmi laha bi kamaali zaati man Cheikh Ibrahima maay soppeem zaat maay mbóotu zaat maay namu namu zaat waaye feeñu waaye ñeewal ko kon moom mooy jaamiu tanjëmi yaatu zaati mooy Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima wërsëg suñ waxee wërsëg bu jógee ci yàlla nit ñi dañuy foog ne ay xaalis la oto ak ay kër waaye lu wóolu wërsëg la taw wërsëg la li wax la sainteté mooy wilaaya wërsëg la li ñuy wax xilaafatu wërsëg la waaye dëgg-dëgg wërsëg mooy fay la mu ne awalam ya'lamu anna Allaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru inna fi zalika la ayatin li qawmin yuminun xanaa xamuñ ne yàlla moom moom wërsëg te moo koy jox ku ko neex lii nag misaal la ay preuve la ci ñi nga xam ne aji way gëm leen wërsëg mooy loo bëggoon yow mënoo koo am yàlla jox ko keneen kam ko jox loolu wërsëg la ci moom fayda Cheikh Abdou Khadre Jeylaani bëggoon na ko waaye mënu koy am Ibn Arabi bëggoon na ko waaye yàlla wërsëgal na ko Cheikh Ahmed Tidiane bi moom tarixa bi bëggoon na ko waaye waaye yàlla wërsëgal allahu yabsutu rizqa liman yashaa min ibadihi wa yaqdiru innahu bi kulli shay'in alim moo tax mu ne wa ahlu zamani kulluhum faaza raqiyan siwa man xala nan ji asira waaye examen jamono mucc nañ ànd ak yëkkatiku ba mu des ku bañ wan ma ginnaaw te dara taxut lu dul bàkkan rek waaye ku ànd man rek texe man Cheikh Ibrahim gis nga lii may wax nag mooy wax de moom bàyyi ko nag ngir boo gërewu waxuma ko tam ngir damaa mooy woote waaye sax waxat ku jamiyal phase yi na waxaay waaye man sax képp ku yàlla di may man lay laaj ba pare man Cheikh Ibrahim man nangu ñu soog laa def te damay wax toujours sama waxtaan ne képp ku waxal yàlla loo xam ne du dëgg suy mot 40 yàlla war na ne lii a wax du dëgg li ma ko Cheikh Ibrahim waxee ba tey ëpp na 40 tey la fay du gën a yaatu kon allahu yabsutu rizqa liman yasha yàlla mooy maye wërsëg mbiru Cheikh Ibrahim wërsëg la bu jóge ci yàlla moo tax Ibrahima Diouf mu ngi nettali mu ne bu loo xeexaat jënwum fekk na jënwu mag wi mu ngi naan ko may bax moor maa nga seenu ndox mi su ma nokkee rek day giraas wa ahlu zamani kullum fazaraqiyan siwa man ala nahji asirrahu wa ni maa di seen njiit Sidi Bara Hamma ndox meeg suuf si maa ko gardeel ax mu baraxama bamba boo dem na ci baxru jën wu mag wa yëngu boloo xiyaa delu sabbal sidi baraxama jën waan ko naan maa dem mahmuur may wu mag wi duñ la xiir duñ la sànni waaye li yéeme mooy jaan yoo xam ne amul fu mu tàmbali amul fu mu yam ci bakkanu mbott lay fanaan moo tax moom tax mu ne ko shahadtu ismul ahzam zaatan mujaradan ani nasabi laysa laha awalan wala aaxiran wa bi haysu aqulu inna zaat al ismu wal ismul waaye kooku ci fu muy fanaani moom ci mbakkanu mbott kooku mooy maam Asta Ndiaye moo tax mu ja mu jaaxle ñoo ne ko xanaa yow yaa yàlla ñu ko déedéet man jaamam yàlla laa waaye doxul taw bi maa ko yenul ëf lu baax lu amul bopp amul jeen waaye mujj na dem ba dem ba moo fi wàccee sànq yu tedd mooy suñu sëriñ mooy Cheikh Ibrahima moo tax mu ne su fekkee ne dara yitteelu la yow lu dul fay leer gii noppalul yàlla bañ na bu dee dara taxu laa jóg lu dul leer fay leer gi nga xam ne ci yàlla jóg yàlla la jógee mu ne yàlla moom bañ na xam naa daf ñuy fàttali aw ka zulumaatin fii bahrin lujjiyin yaxsabu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahaabun zulumaatun ba'duhaa fawqa ba'din du sotti de kenn mënu koo fay kon ñun am na leneen lu ñu war a ñun taalibe Cheikh Ibrahima lu dul weerante gi xew léegi waxante yu bon yi uññiwante sutura yi enregistrement yi am na leneen lu ñuy xaar am na beneen dimension boo xam ne su woon parce que sami fi nekk ñuy wax waaye danañ ko junj ñu xam ne fii ñu bàyyees di xaar moom laa doon junj keroog rek ci waxtaanu fay na ci jaar yi ma ne yow mi doon tiitarul lasraar foog ne loolu nga mënee Cheikh Ibrahima ma ne ndomb bi ngay takk gëm ko mu am bopp ma tubaab bi moom bopp wagon la ko def li ci des mu def ko train muy yóbbu nit ñi ñuy liggéeyi ba detaane xaatim bi nga gëm roboo la ko def muy tabax ay immeuble kooku nag fekk na fii Sénégal ay jinne tubaab boobu moom la ñuy wax le blanc actif am na lu ñuy wax le blanc passif le blanc actif moo garaaw moom moom moo ñëw sonal suñu sëriñ si lool te takkul benn téere amul saabara dafa day alakul dara dara kooku lan lay firi ci xadara yàlla bi waaye nag jaaru bolloor dañuy bàcc bàccal def ci saabu waaye nit ki naan moom ku ko laal dee bàyyi moom fu mu yendu moo moo moo ko tàbbee boppam moom la neex kooku mooy suñu sëriñ seen raaj yi sëriñ bi dañoo kontaan rek moo tax tey ñu wax lu yëpp mbokk taal bi ñoo ngi sant rek ñu góorgóorlu tuuti waaye man soo teelee moom wax dëgg fi yàlla damay banalise te da jàngale loo xam ne biñ fi nekkee di utur buturi ku ne di jaay maqaama ñii di fuuf moom benn message rek la def rey ñëpp fay xaar yëpp moo ko fay gerte ak ataaya communication bu doy waar boobu internet baa ngi tàng jir coow laa ngi tàng jir moom boole wu ñu wax moom ataayaam teg ci ataayaam mag teg gerte man dama koo kor rek fay kii moo mag waaye moo baax balaa nga koo xam nga nekk ci ay xat-xat gis ko guddi mu ñëw di la moom set billaay xam naa ne bul sax wax bu mel noonu waaye am na yoo xam ne day wallaay ku leen ñëwee rek mooy yaa ngi toroxal sa ñun su fekkee comprendre nañ kan mooy Cheikh Ibrahima ñun dañ war a tëdd ñii di ñu nappaaje ñuy bég ñun ci loolu lañ war a bég moo tax la mu nettali keroog ci gàmmu Cheikh Tidiane bi loolu moo ma jooyloo keroog ba ñuy nettali xale boo xam ne moom moo doon wax ne nañ ànd ak ay ñoom Cheikh Mamadou Kones ñu ngi nekk ay xale mu ne nañ leen dem bu ngeen doonee rek bàyyi xeex ci affaire bu ne mu a ñu dem gis benn xale mu xëpp ko suuf xale bi dafa di ko somb bu koo dóor ñu ne ko it su summi yëre ma yi pour ñun ñu leen correctement sax daf lan moo ñu dal ñun pour ñun ñu leen correctement surtout sax mënatuñ leen ko defal xale bu ndaw bu tuuti moom ñu ko ci doomu baay la mu summi ay yëreem di fëgg dënnam bi naan ko dóor ma dóor moo <laughs> li mu ko jàngal ci la ko jàngalee woyof ak daal yow loo mën a wér ak loo mën a xam li la war mooy suñu ci seen kanam loolu mooy dégg yàlla gis nga tasawuf lu muy compliqué compliqué xam nga loolu lañ firi simplicité ak yar ak jub lii rek la dama ne bàyyi fenn moo gën mokkal alquran mokkalan boo leen béy ci bàyyi dàqalaaj jàngtari alquran bakara ba daal te bàyyi woo fenn gis nga karaama ci tariqa tijaan xam nga lan la lan mooy karaama ci tariqa tijaan mooy bàyyi fenn bàyyi wurul bàyyi njaaloo bàyyi tappale gis nga yii soo góorgóorloo ba bàyyi ko rek def nga karaama ci tarixa ci njaan kon قبلها بالتبليغ العالم وفي والصوت توقف ثم بدا البلاد لا بشر انت ولا وقت ولا مطهرا تركب السفينه وقف ترجم نصرا ولا وقت ورتلنا لك قليلا مجسما تجول فيها وليس بصرا تنقلب من سالب الى வெற்றிகள் முடியும் விரும்பும் இந்தியாவில் தக்காலத்தம் உலகத்தில் மாவட்ட சட்டத்தாக்குவதான் இன்னொரு குழப்பம் நம்ம பிதாதிக்க தியாய் நுருவ சுப்புகடத்தான் இனத்தரப்பு اللهم انا نسالك بجاه من بعيدك الماجد والقاسم عندنا من ذلك النور والضياء وانتهينا الى سبيل الرشاد يا مصطفى من قبل الاتهام الكون لم تطلعوا نرسل الذي قلت دعوتي محمد المطيع لا يمجون وعمل يتذكر مع مجوهي بعد تمام وكرم يرمي الله من آياتنا من ربنا وكفر أما أكون سارا في الدين وقل ما شتم في وقتك وانت بلا تأتي ما شتم شرفك وانت بلا قدري ما شتم من فإن

الله أحد Give me the سيدي شفيع في منزل البديع حبيبنا محمد